mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi si wax seen chaîne youtube bi di IYAT TV euh, di leen di wax euh, dal leen ak jàmm woy leen di euh, abonné te ngeen di bës cloche de notification bi ñuy dikkaat ci li nga xam ne rek moom mooy analyse yi ni ki tey nag mën nañ ne gannaaw ba ñu gisee ñi nga xam ne rek ñoom ñooy acteur politique yi ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo féete ci opposition bi mën nañ ne jamono bi ñu toll nii ñu ngi wër li nga xam ne rek moom mooy médiation ba tax nag ñuy faral di gis ñu si bari si ñoom di dem ci kër kilifa diine yi mën nañ ne nag ñetti fan yi ñu génn loole moom mooy li ñu gën a nemmeeku ràññee ko lool lool sax li ko waral nag du lenn lu dul rek fitna ji nga xam ne sénégalais yi daal nañ koy dund ni ki semaine bi ñu génn bi ci mujj gis nañ ki nga xam ne rek moom mooy Bougane Gueye Dany ak kii di baax Barthélémy Diaz mën nañ ne ñoom gis nañ leen ñu daal di bu dul boobu sax gis nañ rek ñi nga xam ne rek coupé lii di seen euh, signal euh, ñoomit it daal di nañuy génn di yëglu di naqarlu tamit dem ba foofule ca diwaanu Touba Mbacké ci ki nga xam ne rek moom mooy xalif général euh, des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mbir mi ni mel nag mën nañ ni moom moo tax nag kii di président de la république daal di taxaw ci tànk yi nga xam ne rek mën nañ ni këdd nako na ko di xamle que ne kat bi ñu toll nii xalaatu la yëy yàbbi eh, ci problème bi nga xam ne rek eh, sénégalais yi ñu ngi koy dund Euh, ci jamono bi ñu tollu nii mu nekk problème bu nga xam ne nag bu sérieux la euh, ba ay doomi aadama yu baree bari jot see ñàkk lii di seen bakkan li tax ñu ñàkk seen bakkan nag mën nañ ne gannaaw fitna ji nga xam ne rek moom moo juddu woon euh, te tamit lu jig njàkk kii di président de la république mën nañ ne am na si part de responsabilité ndaxte kat boo xoolee ba saw askan nekk ci fitna ba ay doomi aadama di ca loru ba passé loru sax ay nit yu nga xam ne rek mën nañu euh, dañ si euh, ñàkk seen bakkan euh, mbir mi ni nag tax ñu daal di nekkat war nañoo def li nga xam ne rek moom mooy toogaanu pour waxtaan te muy médiation mën nañu médiation boobu nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy patriote yi ñoom xalaatuñu ko jamono bi ñu toll nii rawatina ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko mi nga xam ne rek gannaaw bi ñu daal di gis euh, kii nga xam ne rek moom mooy Antoine Félix joom daal di jot a xam ne que ne kat euh, jaadu na ñu daal di dem waxtaan ak kii di Ousmane Sonko ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko war a def moom médiation muy ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ko gën a jege euh, te mbir mi ni mel nag mën nañ ne moom mii di président Ousmane Sonko. ci ay kàddoom nee na xalaatu ko te tamit du ko def te ñaanul kenn sax pour muy dikk di def médiation ndaxte kat dañoo toll ci jamono gatsa gatsa comme que ñoom nag ñoo ko soom bi nañ fexe ba ñu man ko naan rek ndaxte fitne ji nga xam ne rek woote woon nañ ko mën nañu ñi nga xam ne ñoom ñuy opposition bi amuñu doole bu nga xam ne rek war nañoo mën a wëyal lii di fitna ji kon nag bu fitna ji yeewoo ñëw ba yegg si fii nii rek mën nañ bëgg a liquider adversaire moom moo gannaaw nag candidature am vingt 2024 yi taq suuf lool ci jamono bi ñu toll nii Euh, loole nag mën nañ ne waral na ay leader yu baree baree baree bari rek euh, jamono bi ñu toll ni gis nañ leen ñoom it ñu yëngatu timit di gëstu euh, ci làngu politique gi te li ko waral du lenn lu dul rek gannaaw ba ñu gisee kënekat kii di Ousmane Sonko bu ñu amul sens dinañ ko daal di nëbb lii di jant bi te mbir mi ni nag bés bu ñu ko defee rek boo amul sens Sénégal dina dugg ci ak guuta gu nga xam ne rek mën nañ ñi ne jamono bi ñu toll nii sax ña nga ca biir tax opinion nationale bi yëpp rek internationale di intervenir ci dossier bi nga xam ne rek moom moo nekk actuel euh, fii euh, ci réew mi di Sénégal loolee kat nekk mbir mu nga xam ne rek mën nañu ne sax ñii di waa France vingt 24 daal dinañ si jota euh, jota intéressé wu lool ba tax saa su ne ñuy amal ay interview yu nga xam ne rek euh, dañ say daal di leeral te tamit di ca nemmeeku bu baax a baax euh, situation actuelle yi nga xam ne rek Ah, mën nañ ne mi ngi xew fii ci réew mi di Sénégal euh, kàddu yi ni mel nag bu ñu ko yëkkatee dañuy gis que ne kat ñi nga xam ne rek ñoom ñooy opposition bi euh, daal na ñuy taxaw takku bu dëgër dëgër dëgër euh, di xamle que ne jamono bi ñu toll nii du jamono yu toog sa gannaaw ba ñu nemmi ko que ne élection yi li ci des bareetul te war nañoo def médiation dox tànki jàmm ci diggante ñi nga xam ne rek mën nañ ne jàpp nañ ne bu ñu ko continuer ci rythme bi ñu nekk rek boo amul sens sax euh, randal élection yi mën na ci am te loolee ñenn ci ay analyse kat daal di koy jote a def ne bu fekkente ne li nga xam ne moom mooy fitne ji continuer na nii kii di président de la république dina daal di jéem a euh, randale euh, date d'élection yi nga xam ne rek jàppoon nañu ko te loolee moom mooy mbébétam moo tax jamono bi ñu toll nii Euh, bëgguñu lii di euh, mbir mi rek daal di arrêté gun tax nag mën nañ ci dialogue national bi nga xam ne sax ci la ñu nekk jamono bii ñu toll nii war a dem bala le 24 mën nañ ne pour mu daal di jeex mu janook askan wi waxtaan ak ñoom moom mii di président de la république gannaaw kàddu yu mu yëkkati woon rek ba ñu sàkkuwee ci moom ne ko kat na daal di génn indi ay leeral ci dossier Ousmane Sonko bi nga xam ne rek euh, mën nañ ne moom moo nekk ci taabul ji. moom mii di président de la république euh, lam sa jot a xam ne moom mooy ne amul lenn lum sa yëy di sa yàbbi ndaxte moom loolee du farataam lii farataam jamono bi ñu toll nii Euh, mooy ko euh, bi nga xam ne rek euh, sumboon na ko fas yéene ko amal ak ñi nga xam ne rek ñoom nangu nañ ko wuy si kon nag ku ñëwul ba am ay jafe-jafe loolee sa lem la ka wuy ji nag du kenn ku dul Khalifa Ababacar Sall man nañ ne nag moom moomee sax <laughs> moom moo fa nekkal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi kan Wi ci noonu lañ ko mën a dippe gannaaw nag ba ñu gisee ay intervention yu nga xam ne rek mi ngi koy amal su ne ci li nga xam ne rek moom mooy dialogue bi gannaaw nag génnam moom mi nga xam ne rek mooy Bougane Gueye Dany euh, ca foofale ca Medina Baye gis nañ nekkat gannaaw xalif général de Niassène ba mu ko daal de dalal ci waxtaan wu yaatu nga xam ne rek seq nañ ko mën nañ génnul li nga xam ne rek moom mooy jàmmi réew mi doon ñu gis ki nga xam rek moom mooy mu amal mbir minimel di def li nga xam ne rek moom mooy ay tournéem euh, ci loo xam ne rek médiation la luy indi jàmm ci biir réew mi mbir mi ni nag nekk mbir mu nga xam ne rek mën nañ ñee nemmeeku nañ ko euh, ci jamono bi ñu toll nii ñi nga xam ne rek euh, ñoom ñooy opposition bi Euh, ci ni nga xam ne rek noonu la ñuy taxawee ci lépp lu nga xam ne rek luy delloosiwaat jàmm ci biir réew mi la loole nekkoon li nga xam ne rek mën nañ moom moo gën a fees ci actualité bi ci jamono bi ñu toll nii euh, di wéy nag di leen di toppal li nga xam ne rek moom mooy seeni information donte nag Ousmane Sonko ba jamono bi ñu toll nii ci ay xibaar yu mujj ma nga woon foofule ca biir këram gannaaw résidence surveillance bi nga xam ne rek ca la nekk noonu lañ ko mën a dippee Euh, kon nag di la jaajëfal yow mi ñuy suivre ci seen chaîne YouTube bi euh, di IYAT TV wéyal di abonné ba beneen yoon ñu dikkaat ci yeneen i jàngat jaa ngeen jëf.